seex yow mi amee tànk yu miti demal nga seeti seex mu tàggale la ak moom yow mi amee prostate demal nga seeti seex nga amee goitre wala enzyme boo seetee seex mu tàggale la ak moom nga amee hémorroïde wala ndoxum siti nga néew kattan ba mënoo sa soxna dara boo seetee seex mu jox la garab goo xam ni yaay sëy ba doyal rek bàyyi wala nga amee awra bu gàtt wala awra bu tuuti boo seetee seex mu yokkal la ko ba mu doy na nga bëgg ku ñuy sànni kort wala ku seytaane mu dindi la taxawaay ci ñaan seex nag la mu làmboo lépp làmmiñ mënu koo tudd képp ku ci bëgg am lu la leer mën ngaa jokkook moom ci numéro téléphone yii muy 78 397 65 93 78 397 65 93 Serigne Cheikh Konte ya ngoog nee naa la faj seen aajo mooy li koy teel yow mi tawat dem fu ne bañ ni la mënuñu laa faj boo seetee seex mu tàggale laa ak sa tawat tàggale la ak sa jàngoro Serigne seex Konte yi nee naa la wàllum faj ak ñaan ak lii di seet yàlla da ko see may. naka nga jàngatee sorte yi nga xamante ne Mbaye Kouthia def na ko défendre kii nga xam ne Mbaye Kouthia. Eh, eh, eh, bu ma wax Mbaye de kan mooy Mbaye. mais kan mooy Mbaye Mbaye nekkoon Kouthia Show. ma ngeen sama bindal na woon Kouthia Show Mbaye moo doon ragal lem sama yére Kouthia Show. Mbaye Mbaye moo doon lem sama yére Kouthia Show. Mbaye moo doon lem suñu yére Kouthia Show Mbaye du comédien Mbaye dafa Mbaye Mbaye dafa ñu mën comédien la. non Mbaye Mbaye Mbaye gis na ñi moo teewoon Kouthia Show bi sax. Mbaye moo doon Kouthia moo doon yónni Mbaye xam nga lu ñu doon yéene seen biir de moo doon yónni Kouthia def ay kii Mbaye bu dof boobu ñu ne comédien Mbaye lu wax dof la rek lay wane Mbaye comédien Mbaye du comédien de Mbaye Mbaye Mbaye mooy yow mën naa ko comédien moom la moom comédien la. Mbaye waaw parce que. day fen day duul day fen mën naa comédien la Mbaye moo dàkkee fen waay Mbaye moo Mbaye ma wax grand man damaa jox sa micro. lan nga jàpp ne moo tax Mbaye doon défendre Kouthia. day défendre Kouthia ke day défendre Kouthia gis nga pour pour pour du défendre Kouthia parce que Mbaye intérêt bi lay xool mbay amatu buzz mbay kenn sanu ko doo am buzz am nga am nga DJ Yves dafa ko dax. waaw ah. DJ dafa ko dax. comprendre fa non moom mu ñëw ci Kouthia di defan Kouthia di defan Kouthia pour que Kouthia may ko ay junni ay ñaari junni tamit defan Kouthia mbay defan Kouthia petit defan Kouthia. mbay waaye yow mbay mbay raxasu mbay da doon ñun son daal di Kouthia mbay bu mbay du comédien mbay Kouthia show ñetti nit la woon man Ndiaye man Ndiaye Kouthia mooy mooy trois éléments mais Mbaye eh, Mbaye Mbaye Mbaye yow yow li nga doon de défiant moom def un défiant il est capable de tout défiant am nga défiant classique mooy mbay <laughs> Mbaye défiant classique mooy Mbaye Mbaye Mbaye kan moo ko xam kan ñu la kan ñu xam yëfër Mbaye day wax cu day wax cat Mbaye moo dàkkee dul Afrique Afrique du Sénégal de moo dàkkee maos mbay bu wax loole ni ngay gëm ni ngay filmer Mbaye Mbaye déglu ma day defan Kouthia parce que ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo yem am nga ñaari <laughs> ñaari bujuma ni du ñuy ànda du ñu bàyyante parce que bu ñuy dañuy bàyyi mbay yi tot mbay Mbaye secret Mbaye mi ngi ñëw Matar mbay génne teel la defan Kouthia Boss Mbaye mi ngi ñëw. ah mbay kon da nga jàpp ni dafa am. am nga ñaari bujuman bu ñuy ànda dañuy ànda noonu c'est c'est ils sont faux ces gens là ils sont faux ils sont très faux ils sont très faux ces gens là. kon mbay da nga dafa am loo xamal parce que yaa ngi naan Boss Boss mu ngi ñëw. toog nga xool am nga. voilà mais Mbaye day attaqué Amina Mbaye mbay mbay déglu ma am nga ñaari am na poté man defan ma parce que sama jigéen la Viviane sama jigéen la Pape Seye Diallo sama waay la mbay déglu ma de mbay yaay dakke duul mala dakke fen barki Seydina Mohamed Mbaye yaay dakke duul mala dakke fen gis nga Mbaye yow amatu buzz dakoo français dakoo naar da dara da mbay fii laa dul ne moom moom moom day dem itali concert ba léegi dem na fii laa dul Sénégal yëpp du dugg kenn Wally di dul waa Wally Seck di dajale rek di ànd ak Wally ma ne <laughs> mbay dafa doon Wally Seck dafa ko doo di dul di dajale xaalis jàmbur ñi di cotiser jox ko 5000 di cotiser 2000 francs mbay day dem Italie nee na Torino la presse yi à Torino créé ay dat di doon nit yi kii mooy kii sa mbaam moo ko tane kii. mbaam bambara am nga mbaam kooku bambara moo tani mbay dafa fen dajale nit kii bu am na am na peut être su fekkee moom dama bëgg a mu ñu am na peut être bu embauché ko buzz du tanga wax mbay lu mu wax yëpp fen la day fenni rek comme la fa non mbay peut être moo ko gën téeméer yoon te pote être mu am te ku ca moo indi peut être tey fen am te ku ca amu ko Pape Diallo mu am ku ca amu ko. Viviane lu am te ku ci amu ko mbay patron mbay sa amu ko peut lu mu am te patron mbay xamu ko nañu bay mbay na d'accord merci bay di fonto nit bay di fen di dul di da bi nga woo gars yi dama lay mbokki Sénégal déglu leen ma bu baax ma wax leen ki mën faj bu baax ak ñaan gu wér di defarit produit yu baax kookoo di Serigne Cheikh Konte yi ñu gën koo xam ci Cheikh borom produit yu baax yi nee naa la nga bëgg ku la seetal demal nga seeti Serigne Cheikh Konte yi dina ñaan dina seet boole si faj ba mu wér waaw waaw lu jafee gis faj ba mu wér laa la wax de déglu ma bu baax mbokk mi ma wax la Cheikh feebar ya muy faj yow mi am jabet bañ ñi la du wér demal nga seeti Cheikh yow mi amee feebaru AVC ba paralysé demal nga seeti seex yow mi amee tànk yu miti demal nga seeti seex mu tàggale la ak moom yow mi amee prostate demal nga seeti seex nga amee goitre wala enzyme boo seetee seex mu tàggale la ak moom nga amee hémorroïde wala ndoxum siti nga néew kattan ba mënoo sa soxna dara boo seetee seex mu jox la garab goo xam ni yaay sëy ba doyal rek bàyyi wala nga amee awra bu gàtt wala awra bu tuuti boo seetee seex mu yokkal la ko ba mu doy na nga bëgg ku ñuy sànni kort wala ku seytaane jàpp wala ku jàpp boo seetee seex mu dindi ko ndax yàlla da koo may si wàllum ñaan seex nag la mu làmboo lépp làmmiñ mënu koo tudd képp ku si bëgg am lu la leer mën ngaa jokkoo ak moom si numéro téléphone yii muy 78 397 65 93 78 397 65 93 Serigne Cheikh Konte ya ngoog nee naa la faj seen aajo mooy li koy téel yow mi tawat dem fu ne bañ ñi la mënuñu laa faj boo seetee seex mu tàggale la ak sa tawat tàggale la ak sa jàngoro Serigne Cheikh Konte yi nee naa la wàllum faj